2023 li ñu nemmeeku woon mooy drogue bu ñu saisir bu bëree bëri ci côté Sénégal ci aéroport tamit drogue boobu ñu jël danaka mu ngi tollu ci ay milliards milliards ci suñu xaalis janvier 2023 benn cargaison boo xamante ni lépp 2000 tonnes moom la defoon ñu koy xayma ci 120 milliards ci janvier 2024 douane bu Sénégal jàpp na ay nit ñu yoroon ci lu toll ci junniy kilo cocaïne ci diggante Sénégal ak Mali ñu xayma woon ko ci 90 milliards ci suñu xaalis jamono ji ji nag ñi nga xamante ni dañuy trafiquer drogue ñu ngi ci jàpp bëri na bilan bi mooy kilo dix kilos cocaïne yu toll ci quatre milliards brigade mobile bu douane bu nekk Fatick ñoom ñoo ko gis ab laaj rek samp ndax yoonu Sénégal yi dafa fees dell kii di leeru drogue li ñu mën a wax moom ay at yi ñu génn ñu ñu jàpp ci ñuy trafiqué drogue bëri na ci ci fànn yëpp Amérique du Sud nag nga xamante ni drogue bi foofu la ëppee benn rapportu Nations Unies moo génn ni Afrique de l'Ouest ba ci sax centre daanaka njaayum drogue bi ak di ko jëfandikoo foofu la ëppee rapport bi nag mu ngi wax ci diggante atum 2019 ak 2022 juróom fukki tonne ak juróom ñaaru cocaïne ci Afrique de l'Ouest moom la ñu saisir fi ñu ko saisiré nag ñetti dëkk la benn bi di Cap-Vert Bénin ak Sénégal Sénégal nag yàgg na torop ñuy xeex ngir jëfandikoo ak njaayum dorog mu jóge fii waa douane nag di ci def liggéey bu mu cayib di xool di saytu fii ci dëkk bi ba ci frontières yi ngir fexe ba képp koo xamante ni ci dorog bi ngay liggéey ñu teg la loxo